ووجدوا ما عملوا حاضرا alxalifa cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahima Niass al imaam cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé cheikh Mouhamadul Quraysh cheikh Ibrahima Niass cheikh Mouhamadul Xaafid Ould Nahwi si seen ndigal ñoom kilifa yu mag yi ci la commission grand prix international cheikh Ibrahima Niass pour le récital du Saint Coran si njiital Mouhamad Abdul Malik cheikh Ibrahima Niass ñoo leen di yëgal bésu sargal ñi raw ca jongante alquran bi ni mel ñu fas yéene ko amal ca këru gan dimanche 7 avril 2024 bu 21 heures jotee ña jiitu nag lañ leen di njëkk a teralee mooy tafsiru alquranul karim bu Baye Niass ki jël P 10 millions lañ koy neexalee ki jël deuxième 5 millions ki jël troisième 3 millions ki jël quatrième 2 millions ki jël cinq 1 million ñeneen ña ca topp ay ndàmpaay am solo lañ leen di jox ñoomit it jaayise bii nag mooy premier concours international pour le récital du Saint Coran ci Sénégal ak Afrique de l'Ouest moom lañ fi njëkk a taxawal fanweeri réew yi ci participer par zoom lañ leen ko defalee ña ca qualifié nag kenn ka waa Jordanie la kenn ka waa Bangladesh kenn ki égyptienne la fa ñu ñëw fii Medina bàyyi fekk si sénégalais yi nga xam ne fa ñoo qualifié su ko defee ñu amal final ba ñu ànd ca ak seeni sponsor fond Medina bàyyi seen taxawaay ci Medina lépp rafet Babacar Kebe Loko Sen taalibe Baye bu mag yóbbu nit ñi ra wala aji màkk xamut ci morom o Zahra ndox ma fa sell fa neex Tech Plus njaayum ordinateur téléphone groupe imprimerie ak caam imprimerie et communication defar ay bâche ak banderole ak t-shirt ak ci moroom ak mag fiche Kaolack wàllu jaay jën yu weex jën yu mag te saf amuñ ci moroom ñoo nga ca wetu kër gan fañ cay fàttaliku kàngam bu mag ci diine ji maam Khalifa Niass mooy taawu maam Alaaji Abdoulaye Niass mate ku sëkk ca xam-xam ba ay rakam fekk ko mu baax taxit ñoom ñu baax moo doon jaasi tariqa bi géej la woon xam-xamam foo ko natt weesu na ko bés bi nag li muy roy roy ko parrainé Abdou Seck opérateur économique la nitu social la faailul xayri njortu naa ne yéen bu diis boobu ngeen ko yen xattan na ko de ndax nit ku baax la yéen commission bi organiser li ni mel ak allajnatul ulya ayyadakumullahu wa nasarakum wala yazlimu rabbuka ahada